mission bi wallahi Sénégal rek taxu ko jóg Afrique rek taxu ko jóg mission universelle la waaye mbay ci sa wewu tànk waaw en commençant par ici notre Sénégal qui va devenir qui va changer son nom bu ma neexee ni moyen terme bu ma neexee ni long terme pour Mbacké Bari maa ko fi waxoon barki Dembo Ndiaye la république du Mbacké Bari maa ko fi waxoon procesus la néew ñu tey néew ñu ëllëg néew ñu ginnaaw ëllëg tey dafa am ëllëg am ginnaaw ëllëg am court moyen et long terme état bu ci nekk ak la mu laaj yàkkamti wunu forcé wunu poussé wunu ndax dafon ak jal dañu ko bàyyi boroom ku tedd ki ndax moom ca Gabon ba mu nekkee ci suufu ngarab su tuuti boo xam ne shajayra la ko tuddee as ngarab natul sax garab mënu koo keral mu ne wax di wax wahdaka taxta shajaratin fa anjis waadaka loolu la wax yàlla sa wéet gi nga wéet ak ni ma wéete fii nga xam ne yow rek laay wéetali ko ci suufu ngarab sii li nga digga def ko fa anjis waadaka moom kepp rek dong kot loolu moom moomu moo waral mission bii il est le sauveur de l'humanité mu bëgg sauver sowee Sénégal bëgg sauver sowee Afrique bëgg sauver sowee àdduna bi yëpp loolu waral yaa malikal mulki yaa man jalla han xawadin irham jami al wara ya hadiyan radaa wala xeyrihi mu mel ni révolution la boo xam ne dafa pacifique waaye domaine yëpp nag la concerne religieusement culturellement politiquement financièrement waaye nag ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ciy njëkk a tàllal loxo mooy la jeunesse sénégalaise góor ñi jigéen ñi yërmande ji di ciy ëppee ngir ñu fexe ba raayo wi réforme yi ñu fexe ba dañuy jël li nga xam ni moom la ko tedd kii digle ñu fexe def ko l'essentiel du texte de notre constitution bu ñu ko defee rek premier article deuxième troisième rek léegi mbir yi leer domaine yépp la concerné ndax yermandi gi dafa ëppi ci ku tedd ki loolu la xam nga lu yomb comprendre la waaw lu yomb comprendre la ku comprendre wul da nga bëgg a comprendre waaye lu yomb comprendre la dafa yomb comprendre hmm? depuis 60 ba léegi ñu ne indépendance waaw ba noppi muy demee ni muy demee waaw man néewu ñi li fi tubaab yi indi baaxul ñun waxuñu lool de waaye dañoo am lu ko gën li ko gën nañu ko génne lii képp la wala waaye du leneen Les femmes am lu ko gën li ko gën la parce que révolution pacifique bi bu leen fàtte ni Bamba fépp mooy mooy base bi Bamba fépp mooy socle bi Bamba noyau dur bi télécommande bi <laughs> li moom appellation la rek xam nga révolution da ngeen koy dégg fu arme puso sax amu ko xumalaak amul puso amul rabbu amul martu <laughs> waaw amul xepp amul sémmiñ amul jaasi nii fetal ku tedd ki moo ni nabat kitabati hani silahi li muy bind moo remplacé ay arme moo tax ñun ñoo ngi foofu moo tax ma ni leen xadd fakk kab la xadd bas fadd la fad zurru walla wanaaf mu jaay leer na nañ